sama borom kër dafa dafa am problème daf ma waroon jël léegi euh, kiyam nijaayam ne ma naa ñëw ñu téléphoné ma ne ma naa ñëw. dafa la takkoon ba pare. waaw dañ ma takk ba pare. léegi ma toog. seen kër. waaw léegi yaayam mu ne ma yaayam nag moom moom mooy taawam mais doolem moo bëriwul. léegi yaayam lu nekk def ma koy dig moom wax dëgg yàlla bëgg na ma. mais doolem moo bëriwul. Hmm. dina dinaa la defal lii dinaa la defal lee soo ñëwee bëgg naa. ku ñëw seet la ku ñëw seet la doo am lenn lu la metti yaa am wax dëgg yàlla bëgg na ma mais doomam bi moo ko doon dimbali. doom bi mooy sa jëkkër. waaw doom bi mooy taawam mooy sama jëkkër. léegi nijaayam bu ma woowee ne ma naa ñëw. sëy déedéet waxuma naa ñëw sëy si jour boobu waxuma dara sax dafa ma ne naa ñëw rek léegi si samedi bi ma ñëw ma teel a dem pour ma pour ma teeloon ñibbi si sax parce que man damaa bëggoon dem seen kër pour bu may dugg néegu sëy ma dem seen kër léegi nag nijaayam bi ne ma comme comme mu ne ma comme sama yaay mooy mooy bàjjen bi te man maay nijaay bi amul problème léegi comme fii laa dëkk léegi dugal si néegu sëy bi rek amul problème léegi nag man tam ma téléphoné yaayam mu ne ma amul problème man yëg naaw léegi bu ma duggee si néeg bi waa ji daal ndekete dugg ci néeg bi mooy sëy wala dem néegu seet bi waaw pour mu jël ma daal yàgg na li ma lay wax yàgg na mën na léegi ñeenti at yàgg nettali nii ñeenti at ci ginnaaw laa moon waaw dem dem ànd naa moom dem hôpital sax mais comme ça yeeg yooyu noonu lu xew yëguma bi nga duggee ci néeg bi foofu lu fa xew bi ma duggee ci néeg bi ndekete waa ji ndekete moom du góor daal affaire bi daal xaw ma xam xam ko woon daal xamul ni du xamu ci dara waaw léegi moom xamu ci dara man waxuma ko kenn bi ma bi bi ñu demee ba guddi sax nijaay bi ñëw na di ñu xool daal ba xam lan la wala mais man waxuma dara daal ba tey léegi moom tamit ba moom mu mel ni ku feebar daal si guddi bi waxul dara léegi bu jékki-jékkee fii la nekkoon Dakar daal am na néeg mais dafa jékki-jékki rek dem dem si nijaay bi fu mu nekk benn dëkk la mu dem foofu noonu toog fa depuis boobu ba léegi nangootul liggéey te mu ngi doon commencé sax temps yooyu joxoon na ma sax pour ma jënd benn xar bu ndaw bu jigéen pour ma yar ko mu naa ma su ma amee kay damay jënd ay poulailler jënd lii jëndalee pour bu ñu yàlla mayee njaboot waa depuis boobu ba léegi nag man dem naa ko. depuis yow mosu leen séq dara. mosuñu sekk dara ba tey mu ngi nii. tey mosoo am jëkkër. am jëkkër moom moom moo ma doon wax ni pour ma xaar ko de moom laa doon xaar daal. te yow yaa sa ndaw koon ba tey. waaw ba léegi man jëlaguma daal. yow yaa ñaataat nii. Ah, mag laa sa ñeent fukki at mat na. waaw war na mat de. te ma tey jànq nga. te waaw te moom tamit du du du mag noonu daal. ay moroom ngeen daal. presque ay morom lañu du mag. waaw léegi lu mu la problème dafa feebar wala dafa am luñ ko def wala. moom daal buñ ma buñ ma woowee dañ may naan yow depuis boobu ba tey ñëwoo xamoo ci lu ñu nekk te kii nanguwul liggéey nanguwul def dara suñ ko waxee mu ne mu ne kiiwam bi day kiiwam côté kiiwam yi day metti awram bi ay kii yëpp day metti su ñu waxee mu ne loolu day metti léegi mu ne. léegi mu ne day jàmbat côté awra bi day métti. waaw mu ne côté yooyu yëpp day métti affaire bi def ko stress daal nanguwul liggéey te mu ngi. hôpital waaw man. ñoom nijaayam bi moom yóbbu woon na ko si sëriñ mais man demoon naa hôpital kë këyit yi sax mu ngi nii. ordonnance mu ngi nii mais euh, docteur bi dafa ma waxoon rendez-vous te man passé yooyu jour boobu lu ma léegi man lu ma amoon yëpp def naa ko ordonnance yaa ngi nii mais docteur bi daf ma waxoon jour boobu noonu mu ne ma man a ñu expliqué ko affaire kii bi mu ne ma loolu il faut ñu xoolaat léegi da ngay dañuy ñëwaat rendez-vous passé yooyu te man waxuma ko kenn damay bañ bu wëree mu am ma am problème pour bu ma ko waxee kenn mu wër moo tax. da ko bëgg suturaal mais problème faju la am. waaw léegi jëm naa faj man ci sama xaalis suñu waa kër sax ñu may naan yow li ngay xaalis bi ngay doon yore léegi yow jëndatoo dara léegi fan nga koy dugal. fekk moom nga koy faje waaw sa borom kër bi du ñëw du def dara sama yaay yenn saa mu ne ma yow. yow yenn saay yi daf may ñaanal te maa ngi am borom kër yàlla na nga am borom kër bu bu gën si yow di ma ñaanal te man kooku laa bëgg. waaw ah dafa teg ni da nga divorcé. déedéet teewul du loolu sax mais koo xamante ni ñëwul kiiwul. te ah, man xamul nu mu demee. waaw chaque jour moom def day woote naa ma sama lii day metti sama lee day metti mun bëgg naa liggéey mais munuma liggéey te moom liggéey rek la buggoon léegi damaa bëgg maam Talaay comme yow jigéen nga nga dimbali mag si ngir yàlla wala suul am ay dara. dimbali ma si dimbali ma si lu mu gën a gaawee ndax instant bii nii waroon naa am njaboot sax bu nekkee ñett sax baax na yàlla boo ko ñaanee da nga koy ñaan loo xamante ni moo nekk ci yow nga waaw ak kii nu mu tudd sax ay dara ak Mansour Mansour tamit na ma dimbali ak ay dara